yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàng mi ak ñaar yàlla tas na sodom ak gomor nanu bamtu nettali bi weesu benn lan la yàlla digoon Adama ak Awa. yàlla dige na kenn ci askanu jigéen ji dina daan seytaane. ñaar lan la yàlla dig Ibrahima. yàlla digg na ko suuf askan wu yaa ak ab sët buy doon barkeelu nit ñépp ñett lu tax yàlla jàpp Ibrahima ni ku jub ci kanamam ndaxte Ibrahima gëm na ne li yàlla wax lépp dina ami ñeent lan la yàlla dig Ibrahima ci mbirum Saara. yàlla nee na dina ko barkeel te Saara dina am doom ju góor. juróom ndig mi ci kan lay jaar. yàlla nee na ci isaaxa lay jaarale li mu dige mbind mu sell mi nee na ci njalbeen gi saar fukk juróom ñeent aaya fukk juróom ba aaya fukk ak juróom ñaar aaya ñaar fukk ñeent ba aaya ñaar fukk juróom benn ca bés ba ca njël malaaka ya artu lot naan ko jógal jëlal sa jabar ak sa ñaari doom yu jigéen yi nekk ci sa kër ngir nga bañ a sànku ci mbugaluk dëkk bi lot di yéexantu malaaka yi téye ca loxoom moom ak jabaram ak i doomam ndax aji sax ji da leen a bëggoon a musal ñu génne leen dëkk ba bi ñu leen génnee ca dëkk ba kenn ki ne dawal ngir rawale sa bakkan bu leen gestu te bu leen taxaw fenn ci joor gi daw leen jëm ca tund ya ngir bañ sànku noonu aji sax ji tawloo ci kaw sodom ak gomoor tamarax ak safara mu sànq dëkk ya ga yépp ak mboolem ña dëkkoon ca ñaari dëkk yooyu boole ca gàncax gafa saxoon waaye jabalu lot geestu noonu mu soppiku janju xorom bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla tas na sodom ak gomor nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla tase sodom ak gomor ci wetu kanaan fi ibrahima dëkkoon amoon na ñaari dëkk yu ñuy wax sodom ak gomor nit ñu bona ñoo dëkkoon ci ñaari dëkk yooyu fàtte woon nañu lu jëm ci yàlla ak li mu santaane nit ñooñu bàkkaarkat yu mag lañu woon yàlla wax ibraahima ne dina tas sodom ak gomor ibrahima laaj yàlla ne ko su fa amee juróom fukk ñu baax ndax dinga tas dëkk ba yàlla tontu ko suma fa gisee juróom fukki nit ñu baax dinaa baal dëkk ba yépp ngir juróom fukk yooyu Ibrahima ak yàlla ci noonu ba ñu mujj ci fukk yàlla na ba tey dina baal waa dëkk ba yépp su fa amee fukk ñu baax. yàlla ak Ibrahima tàggoo Ibrahima dellu këram ci jamono jooju Lóot doomu magu Ibrahima ju mu ngi dëkkoon Sodom amoon na jabar ñaari doom yu jigéen ak ay surga benn ngoon yàlla yónni ñaari malaaka ngir yëgal lot ne dina tas dëkku sodom bu bët setee ñu feeñu ci jëmmu nit lot wax ñaari nit ñi ñu dal këram bi ñu reeree ba noppi góori sodom ñëw ci kër lot ñu wax lot mu génnee leen ngir ñu tëddee leen lot ne leen mën nañu jël ñaari doomam yu jigéen def leen lu leen neex waaye ñu bañ ñaari malaaka ya gumbaloo góori dëkk ba ba mënuñu dugg ca kër ga noonu malaaka ya wax lóot ne yàlla dina tas dëkk ba bu bët setee lóot gaawantu ngir yëgal ko ay mbokkam waaye ñu xalaat ne dafay caaxaan dégluwuñu ko ba bët setee malaaka yi wax lóot mu jël jabaram ak ñaari doom jigéen te daw bala yàlla di tas dëkk bi malaaka yi wax lóot ak waa këram ne bu ñu gestu waaye nañu daw ca tund ya noonu yàlla taw safara ak i xeer ci kaw sodom ak gomor ñu lakk ba jeex ñëpp ñu dégluwul woon artu yàlla boole ci ñenn ci waa kër loot daldi dee bi loot ak waa këram di daw jabaru loot daldi gestu dégluwul artub malaaka yi noonu jabaru loot soppiku nekk janju xorom fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lu tax yàlla atte waa sodom ak gomor ndaxte dañu bàkkaar ñaar ndax yàlla waroon na atte waa sodom ak gomor waaw ñett lu tax yàlla yónni ay malaakaam ngir musal lóot ak waa këram ci mbugalu dëkku sodom ak gomor ndaxte loot daana topp yàlla te gëmoon na ko ñeent lu tax yàlla soppali jabaru lóot ab janju xorom ndaxte jabaru lóot dafa dégg li yàlla santaane ne kenn ci ñoom warul a gestu juróom naka lañu xamee ne amul fukki nit ñu baax ca dëkki sodom ak gomor ndaxte yàlla wax na su fa amee fukki nit ñu baax du tas dëkk ya juróom benn kan moo bokkaar ñépp juróom ñaar kan moo jubawul ak yàlla képp ku doo ci aadama jubawuloo ak yàlla juróom ñett kan la yàlla di àtte yàlla dina àtte ñépp ñu juboowul ak moom juróom ñeent lu tax yàlla di leen àtte ndaxte bàkkaar nañu fukk ndax ateb yàlla jub na waaw ndaxte yàlla dafu jub ndaxte yàlla moonu sàkk ndaxte yàlla moonu moom yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi te naka la melukaani yàlla yooyu feeñe ci nettali bi yàlla xam na lépp yàlla xamoon na bàkkaar yi waa Sodom ak gomoor yàlla bëggul bàkkaar nit ña bàkkaarkat lañu woon te bokkuñu woon ci yàlla yàlla àtte na bàkkaari waa Sodom ak gomoor gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla yónni na ay malaaka ngir yëgal loot ne dina tas sodom yàlla dafa jub yàlla waxoon na ne du tas sodom ak gomoor su fa gisee rek fukki nit yu jub yàlla musal na loot ndaxte ku jub la woon beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla natee ngëmu Ibrahima